waaw tey dama dajale woon euh, dama dajale woon sunu parti ak euh, samay am di jàmm ak ñi nga xam ni bëgg nañoo ànd ci politique invité ñi maanaam ñi ma bokkal politique ci opposition bi pour expliquer leen ni ma xalaat ne bu ma sénégalais yi wóoloo 2024 noonu laa ko bëgg yore ban programme laa bëgg a proposer Sénégal parce que yëpp ñëpp xam ngeen ni Sénégal fi ñu toll semaine prochaine dañuy dem parrainage te dama dama jàpp man bala maa dem parrainage foog ma am lu ma teg ci loxo sénégalais yi maanaam parce que mënuñu maa parrainel parce que damaa njool mënuñu maa parrainel parce que damaa gàtt mënuñu maa njool parrainel dañ may parrainel parce que dama. dama dañu njort ne li ma teg seen loxo mooy livre bii ma tuddee mais vingt deux priorités et douze engagements et cent trente trois accords populaires buñ ko càmbaree secteur bu nekk li ma ci xalaat ne dinaa ko def wax naa ko mu nekk engagement wax naa ne suñu yàlla jàppalee ba sénégalais yi wóoluñu dinañ créer neuf institutions yoo xam ni mooy nekk institutions yi nga xam ni jàpp nañ ni Sénégal bu ci doxee jàmm dina am ci réew mi cohésion nationale dina fi ñëw euh, justice dinañ ko restaurer mu amaat confiance dinañ jàppale maanaam assemblée nationale boo xam ne député bi dina am dignité am assemblée régionale boo xam ni maire yi nekk ci région yi ñooy nekk ñooy nekk assemblée régionale bi conseil national de la justice waxuñu conseil supérieur parce que dañ jàpp ni justice bi ñëpp a ko bokk maanaam dañ ciy dugal euh, journalistes yi dugal ci këru diine yi dugal ci baykat yi dugal ci enseignants yi dugal ci professeurs yi ñu ni conseil national de la justice boobu euh, ministère de l'intérieur ministère de la justice du ko présider le recteur de l'université de droit de Dakar moo koy présider mais rotation la koy def ak les autres facultés de droit du Sénégal waaw ñu ni bëgg nañ créer euh, en fait benn conseil des citoyens boo xamante ni maanaam commune bu nekk euh, quartier yi ñooy dajaloo am conseil des citoyens di waxtaane jafe-jafe jafe-jafe commune bi donc ci kaw ba ci suuf loolu mooy les neuf institutions yu ñu proposé bu ñu yàlla dimbalee sénégalais yi wóoluñu au soir du 25 février 2024. ñu wax également que dañu bëgg que agriculture nekk moteur croissance économique bu ma nee croissance nag croissance bu ànd croissance bu ànd ak ay croissant laa wax mooy li ñuy ndekkee li ñu ndekkee bu ñu xëyee waaw waxuma croissant croissance bu amul croissant croissant mooy ndug gi te loolu pour ñu mën ko def foog ñu bay blé te pour ñu bay ble foog ñu am ndox donc pour ñu maîtriser l'eau foog ñu créer agence nationale pour la maîtrise de l'eau foog ñu def ci quatre cent milliards foog fleuve yi ñu connecté leen foog les lacs ñu xam leen foog cours d'eau yi ñu xoom fan la ñuy jaar foog matériaux yi def irrigation yi ñu defaree ko Sénégal maanaam mooy tuyaux yi donc loolu mooy la vision bi ñu am sur le plan de l'agriculture sur le plan du texte du secteur tertiaire nee nañ nationalisme du secteur tertiaire maanaam banque assurance yooyu yëpp jooni jooni Orange Money Wari Wave ngeen baal ma ci publicité bi yooyu sénégalais yi mën nañ ko def voilà donc on a di que tous ces plateformes du secteur tertiaire nañ ko delloo sénégalais yi nañu géej gi nañu supprimer licence de pêche yi def repos biologique deux ans géej gi ñu bàyyi sénégalais yi en semi industriel di ko ndab mais di am jën ku nekk bëgg am mërëg am am am coof am kii mais ceebu jën coof bu neex Paris lañ koy léegi léegi waaw loolu mooy dëgg aussi gëj gi mënu am yaax mënu leen am mënu leen am jën bu baax donc loolu la ñu wax ne mooy sunu politique sur le secteur tertiaire mu ngi ci livre bi boo leen demee sur les accords populaires di ngeen ko gis ñu wax ne dañu bëgg en fait créer en fait un conseil national de la diaspora mais nag dañuy supprimer député jaspora parce que député jaspora boo ko defee député bu ñëwee Sénégal nekk nekkatul député diaspora député Sénégal la mën naa toog ñaari at dem diaspora donc amul njëriñ ñu koy def député diaspora nañ def conseil supérieur du de la jaspora ñu bàyyi député jaspora wax nañ ne ni ñuy voté député dañ koy changé. assemblée national léegi député yi. par six circonscriptions lañ leen di voté amatul liste nationale loolu moo nekk suñu proposition maanaam buñ nee buñ nee par exemple Yoff Mermoz ak parcelle Assainies benn circonscription la benn député la am wala ñaari député ñaari député yooyu dañ leen fal foofu de manière directe au suffrage universel direct comme ni ñuy falee le maire au suffrage universel direct bu ko defee gox yi ñooy am ay député mais parti yi du ñu am député euh, maanaam leaderu parti yi du ñu am député donc loolu mooy proposition yi ñu def sur le plan institutionnel def ko sur le plan économique def ko wax nañu éducation religieuse religieuse dañ koy dugal dans dans dans dans dans nos enseignements. option lay nekk entre le catéchisme CI ba ba ba ba ba cm ku bëgg a jàng alxuraan nga jàng ku bëgg a jàng euh, catéchisme nga jàng ko mais ñu permettre enseignement yooyu ñu koy def di jàngale li Baye Niass wax. ci école yi di jàngale sañ Touba li mu wax Molière ak kii li ñu def baax na mais ñoom aussi ñu ne li ñu wax moo ñu gënal les enseignements ñu adapté ko en fon en fonction de nos valeur religieuses en fonction de nos valeurs culturelles programme yooyu la ñu am la ñu porté wax nañ aussi que ci domaine u maanaam santé budget santé bi 4 virgule 8 pour cent la dinañ ko yóbbu 18 pour cent sur 2029 ah muy nekk plus de sept cent et quelques milliards sept cent quatre vingt milliards sur deux mille vingt neuf région bu nekk di nga am hôpital bu mel ne hôpital principal département bu nekk di nga am en fait benn euh, hôpital de niveau deux commune bu nekk bu nekk di nga am centre de santé waxuma poste de santé centre de santé commune bu nekk sur les cinq cent cinquante deux communes village bu nekk di nga am maternité ak poste de santé ak laboratoire primitif loolu nag bu ñu ko bëggee def il faut mu am ay moyen moo tax ñu ne xaalisu pétrole bi ak gaz bi 20 pour cent yi dañ koy séddale commune yi ñu def ko ci hôpitaux yi def ko ci écoles yi moo gën ñu koy dencal xale yi xale yoo xam ne denc bi xamuñu kan moo ko denc xamuñu intérêt yi kan moo koy jël xamuñu fan la xaalis bi nekk xale yi ba ñu leen bala ñu leen dencal xaalis ñu utal leen ñu jàng ñu utal leen ñu faju loolu la ñu gën a bëgg moo tax ñu proposer à ce que pour cent des ressources naturelles ñu répartir ko au niveau des communes et des collectivités locales wax nañ également ci suñu programme suñu programme que dañu bëgg en fait que pétrole bee gaz bi nga xam ni dañ ko war a defaree centrale war a changer waat euh, SAR war cee def cinq cent milliards pour changer appareil yi pour mu mën a nekk pour mu mën a utiliser gaz wax nañu ñun courant bi Sénégal di dundee centrale solaire ak centrale hydraulique war nañ koo mën a matal il suffit simplement que région bu nekk ñu def fa benn central solaire comme am nañ naaj de cent vingt mille mégawatts pour soixante mille mégawatts soixante mégawatts mooy centrale bi nekk Malicounda moo polarisé presque euh, trente trois pour cent de l'offre d'électricité au niveau de de la zone de chalandise de Malicounda Senelec pour cent lay produire 67 pour cent yi da koy jënd dans le privé ñun ñu ni loolu na dañ nañu favoriser euh, maanaam euh, électricité boo xamante ni euh, am nañ matière première mooy soleil électricité boo xam ni am nañ matière première mooy ndox pour que les consommations primaires des sénégalais ñu régler ko noonu maintenant suñu gaz ak suñu pétrole au lieu ñu koy jël di ko def ci ay turbines Senelec ah ñu jël ko jaay ko pour am des richesses nationales yoo xam ne dinañu wan wàññi le niveau de vie yokk le niveau de vie des Sénégalais en augmentant l'indice de développement humain parce que ñun taux boobu moom lañ gën a considérer que la croissance parce que l'indice de développement humain mooy la santé l'éducation le bien-être mais croissance boo xam ni amul croissant croissance boo xam ne ay entreprises étrangères ñoom ñoo koy jël yóbbu ko seen réew croissance boo xamante ni maanaam sénégalais yi duñ ko gis ñun loolu du suñu proposition pour 2024 moo tax euh, boo leen jàngatee livre bi li ñu njëkk a wane mooy accord populaire accord populaire mooy euh, dañu bëgg citoyen yi wax ñu seen xalaat ci ci accord yëpp 133 yi moo tax dañ koy dugal internet ñu def ko sondage accord par accord accord boo boo gis boo d'accordul mën ngaa bës ne d'accorduma joxe sa argument bu ñu demee nag ba ba mois d'octobre ñu def ñu ñu dépouiller accords yi xool yan accord la ñuy retenir accords yooyu nag la ñuy def projet parce que livre bi ñaari livre la bi mooy tome un bi tome 2 bi octobre lay génn mooy le programme politique du candidat Malick Gueye en 2024 mais livre bi vision la maanaam yan yoon lañu war a jaar pour maanaam Sénégal maanaam man ñu man man man ñu man man ñu wóolu donc loolu moo moo ñu fa dajale woon tey et je pense que boo leen liiree livre bi di ngeen xam ni bon ñun li ñu bëgg mooy susciter le débat utuñu na ñun ñoo raison li ñu bëgg mooy ñu ñëw nañu li nga wax d'accord ci mais nañu teg loo xam ne aussi ñun mën nañ ko débattre parce que foofu lañ toll aussi.